di nuyu organisation société civile yi nga xamné ne ñoo ànd ci liguey bi bokk ko depuis bi nga xamee ne élection yi ñoo ngi jëm ci élection yi donc euh, vraiment euh, di rafetlu wayu presse bi mais également di rafetlu képp ki fi tok di doré nuyoo bi ci présidente euh, Abi Diallo mi nga xamné mom mo yor organisation euh, association juriste euh, di nuyu euh, euh, Mariam Diop Diaye présidente bi yor organisation bi yoré université ñi nga xamné dañu am sen diplôme ci université di nuyu présidente Penda Sek Diouf bi yor comité de lutte contre les violences faites aux femmes di nuyu aussi sunu sœur bi nga xamné ne dafa teewul tey parce que dafa tukki motax euh muy Sofietou Diop bi nga xamné ne yor réseau sigil Jigéen

liggéey bi nak dafa nek liggéey bi nga xam bu am solo la parce que liko teunk moy li teunk sénégalais yëpp góor ñeeg jigéen ñi muy la loi sur la parité la loi sur la parité bi ko ko leg legi dafa am élection yi nga xam ne ci lañu xayma nan la nan la Sénégal def ndax respecté nako wala respecté wu je pense que lu am solo la parce que euh, lolo tax ñu woo leen je pense que woowoon nañ len aussi ci fan yi passé euh, di woon rek li nga xam loolu organisation wu jigen ñi def pour accompagner femmes yi nga xam tête de liste lañu wala ñi nga xam dañ leen investir ci liste yi accompagnement bobu nak ñongi jëm fim mu nekk nii ci installation wu commission yi bureau yi motax ñu wo leen tay pour ñu partager ak sénégalais yi ben comité bi nga xam appel lay doon parce que l'élection yi ñu ngi tenir euh, le 23 janvier 2022 On est nga xam ne le Sénégal mom lañ ko nawé c'est-à-dire que élection yu euh, vraiment démocratique même suñu ñaawlo violence yi nga violence, nous fi mais élection yi jaaree na fi nga xamné fofu la wara a ñu rafetlu ko nous remercier et féliciter également nos candidats qui sont la société civile organisation société civile nek ci organisation wu jigéen ni, ñi nga dañ ci de ñu accompagner ba ñu fal ñi nga aussi euh, accompagnement continuer de toute façon même après élection di wax ne processus électoral bi nga xam ne ci la ñu jóge dafa jëm ci beneen pàcc muy fal conseil municipaux yi ak bureau fal commission yi membre commission yi parce que loolu le loi bi wax loi bi dafa wax ne euh, institution yi nga xam ñoom la décret d'application bi jël moy conseils ruraux et euh, conseils régionaux municipaux ruraux ak seni bureau ak seni commission wax ba wax né même assemblée nationale même bu féké né du élection bi tay assemblée nationale bureau ak commission loi bi dañ ko wara chi, respecter ci ci fan ñu ni ñun organisation société civile organisation du guinée dañuy wax parti politique nous ñaanuñu leen dañuy wax ne parti politique yi yenn ak coalition de partis, ak autorité euh, entité indépendante yi autorité surtout administrative nous na ngeen loi bi jaarale ko ci yoon li nga sont les moom la yoon di wax ne fal nañu maire yi dëgg la président de conseil ñu ngi ko fal euh, maire yi ñu ngi leen fal ci suffrage universel direct ñuy fàttali ni maire yi ak président yi ci bureau bi lañu ñu bokk maire yi ak président yi ci bureau bi lañu bokk donc ñooñu dañu war a respecter disposition yi nga xam ne

ñu ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo war a fal suba ñu respecté li nga xam ne moom la yoon wax jërëjëf